alors maa ngi leen ko doon wax sànq tey jilee fii la ñuy des ci ndakaaru rawatina fale ca Parcelles Assainies dañuy dem fekk jëfa Abdoulaye Diop Abdoulaye ginnaaw ba ma la nuyoo ziar la ba noppi tey fan nga ñuy yóbbu ca parcelle waa ñi ngi lay dalal di dalal aussi ñi nekk ci plateau bi mais aussi téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan tey nag xam naa dama leen di cax ndax fi ma nekk tey ci Parcelles Assainies bu ñu ko waxee xel yi dañuy dem ci benn marché bu siiw mais aussi école bu siiw bi nga xam ne mi ngi fi tey kon ñi ngi marché Dior joor nag tur bi dañ bëggoon a xam fan la jógee ndax ci école bi la wala ci marché bi moo tax tey dañuy dugg ci biir rek laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu wax ñi tur bi fan la soqee ko xaar ñu dem. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. grand ça va na ngeen def. ça va a ngi jaay tissu marché Dior naka liggéey bi. waaye sant yàlla ñoo si ko am. waaw yéen a ngi marché Dior ndax xam nga tur bi fan la jógee turu joor turu Dior. non grand xaw ma turu Dior mais mosoo cee gëstu. no non non non mosuma ko mosuma cee gëstu nag. salaamaaleykum grand. waaleykum salaam. grand turu joor lañ bëggoon a xam cosaan bi fan la jógee. turu joor non ma dama koy dégg rek waaye de miinu ma ko joor de laa ci xam moom. joor daal nga ci xam. waaw joor laa ci xam waaw. ok donc bi ñu laajee commerçant yi dafa mel ni ñoom xamuñu turu joor euh, fan la askane donc dañuy ñëw rek laaj ki nga xam ne moom mooy délégué de marché bi euh, xam naa. ñu nga fekk moom euh, mu nekk ci wàllu jaay bi àpp na ngeen def. sant yàlla bu wér a wér. Euh, tur bi naka la. Modou euh, du Modou Dione. sant commercial marché Dior. yow yàgg nga ci marché bi. waaw yàlla def na nag xaw naa yàgg ci marché bi waaw. tey mhm. nag dañu ñëwoon di gëstu rek turu marché joor ci boppam tur bi fan la jóge waa joor tur bi mu ngi jógee ci ki moom école joor bi souvent dafa nekk école boo xam ne moo fi yàgg moo fi njëkk. comme bu njëkk nit ñi xamuñu woon dañu daan wax croisement joor croisement joor ba marché bi commencé dund comme dañu jàkkaarloo ñoom ñaar tali rek moo dox seen diggante ñu naan marché joor marché Dior marché Dior mais ki moom école joor moo tudd Dior. xam naa kon ñu ngi koy jaajëfal ginnaaw ba ñu waxee ni turu Dior euh, fi mu jóge mooy ci école bi kon xam naa dañuy dem rek ci école bi laajte foofu turu joor bi dëgg-dëgg kañ lañ ko tuddee ak euh, kañ lañ sos euh, tur wow noonu. waaw ginnaaw ba ñu laajee euh, commerçant yi ak ki nga xam ne mooy délégué de marché bi ñu wax ñu turu Dior fi mu jógee mooy ci école joor moo tax rek tey ñu bëgg a dugg ci école joor ñoom ñu wax ñu joor bi dëgg-dëgg ci fan la jógee. salaamaaleykum waaleykum salaam ça monsieur Ndiaye. oui euh, ñun dañu ñëwoon rek tey di gëstu turu Dior. Euh, nga wax ñu tur bi fan la cosaanoo. Mhm. Dior turu école bi ñu ko tuddee joor Senghor. la sœur à Léopold Sédar Senghor donc moom lañ tuddee école bi donc c'est le groupe scolaire Dior voilà c'est bien ça. Qui euh, ki ñu ko tuddee moom ak euh, Léopold Sédar Senghor nekkoon président du Sénégal euh, ñoom ñoo bokk. waaw ñoo bokk ndey ak baay. kii mooy Dior Senghor donc moom lañ tuddee groupe scolaire bi moi mooy Marie Dior Sar. Mom, c'est la maman au propriétaire de l'école y yaayu borom école bi donc bi mu tuddee école bi maamam la ko Dior Senghor c'était le préscolaire à l'époque bi mu cycle élémentaire bi ci la ko Marie Dior Sarr voilà ensuite création au moyen secondaire bi ñu tuddee ko Léopold Sédar Senghor. kon ginnaaw ci la marché bi ñëw euh, turu Dior. effectivement donc marché est tout ce qui tourne autour donc euh, kon xam naa dañ leen di jaajëfal rek tey liñ doon gëstu rek ci turu Dior euh, ñu waxal ñu rek ki nga xam ni tur bi fu mu jógee sœur la woon euh, ci ki nga xam ne mooy Léopold Sédar Senghor moo tax ñu tuddee ko école bi école bi ñëw jur li nga xam ne moom mooy marché bi ba tey ñëpp naan Dior kon ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen.

Euh, bu nu seetaanul émission bi duñ ko mën a wax. Mm-hmm, euh, am na ñu fa yàgg euh, man mi yàgg naa fa mais mosumoon xam ni joor sengoor bii la ñuy wax ak Marie Dior Sarr. Mm-hmm. donc mu nekk loo xam ni découverte la. mu nekk également loo xam ni euh, maanaam waa marché bi euh, dañ koy découvrir comme ñun euh, parce que marché bi je pense ay hangar la bu njëkk ñu dem ba benn waaye benn commerçant bu sant Fall moom moo fa installé woon parce que dafa gisoon ni jaabante bi commerçant yi fa di def entre caaro yi ak parcelle dafa sori. mu ni nañuy installé hangar bu nu amee ay bagages di ko fa denc. ba noonu ñu commencé euh, di tabax en dur ay cantines mu remplacer hangar yi. Mm-hmm. finalement comme euh, dafa euh, sorewul ak école joor ñu dem ba marché yi bii Dior lañ koy tuddee. donc mm-hmm. mu nekk une belle histoire. Mm-hmm. vraiment dina dindi ñu bëri ci.

moo tax mën nga nekk ci barab cent ans quatre dimanche doo xam tur bi lan moo koy loolu mooy importance de quoi est le nom bi tey jii je pense que ñu bëri ñuy seetaan gindeeku nañu. Mhm. xam nañ ni école Dior moom moo jur tey marché Dior moo jur arrêt Dior moo jur Dior joor Dior Dior mhm. yëpp. Mhm. mais en 1984 la ñu créé marché bi euh, comme li euh, Mortal de wax El Hadj Alioune Fall moom moo fa jiitu nekkoon délégué de quartier gis ni population yi sonn nañu pour am ndugg il faut ñu dem ba Caaroy mu ni pourquoi pas ñu gën a structurer yëf yi defar ko mairie bi également japp ci ba ñu moderniser marché bi mais euh, je pense que mën nañ ko gëna a parce que xar mom quand même bari na bo fa jaaree lu koy yàq. Mm. Euh, lu nga xamné ne ko gënal moderniser gëna a environnement marché bi dina gëna bax mm. Marcel yow xamone nga tur bi ah? <laughs> yow tamit. ñom nga xamné ne parcel lañu du man ma koy. ñoo koy xam. <laughs> man ma koy xam donc comme niko malik Malick hein, c'est vraiment loolu mo ci euh, apport bi rubrique bi. un reportage d'ailleurs très bien fait de la part Abdoulaye Diop donc qui euh, qui nous a plongé vraiment dans ce dans ce mystère nous ñëpp dañ ko doon dégg ah, mais di fa dem di ko fréquenter mais euh, mais mënuñu fexe ba xam euh, fan la fan la cosaanoo donc c'est mm. on dormira moins bête. absolument <laughs> ah, ah, et puis indication bi cher kuy dem vous sax dañ la naan boo ñëwee ba marché joor. <laughs> c'est clair l'image image yi ñu wane sax maa ngi immeuble boo xam ne dëkk fa pendant deux ans. <laughs> ah bon ah c'est impardonnable. ah Cheikh Tidiane Diawo

c'est mmh. une bonne découverte. Oui, merci beaucoup Abdoulaye euh, Diop. Euh, très belle découverte d'ailleurs ak commerçant yi nekk foofu pour marché Dior di l'en euh, ziar lu bëree bëri dañuy faral di déglu radio bi muy RFM 17 en télé bi aussi également Ñom tamit amuñu sen fay ben yoon 7h39 jotna, 7h40